moom fii moom ah doo xaamee sax ñii ñooy murit ñii ñooy tiyaan ñii ñooy xaat ñooy laaj parce dañoo jël loolu sax teg ko accord def mel na bokk ndey ak baay xam nga loolu doxale man bu amul kenn ku may laaj damay dem ba sax damay ruus sama bopp sax quoi parce nga gis koo xam ne nekkoo sax koo xam ne ba am gis naa ñoom bàyyi nañ set presque depuis 6 mois 7 mois billahi dañ ma avancé seen xaalis ndax xam doo comprendre sax benn instant bi quoi da nga xëy ku tedd ki la xam aussi ak yëg-yëg ak fonk gi fonk ko nekk nekk waa bokk famille ak nekk bu rafet bi ñu nekkoon te loolu yàlla na continuer parce que dañoo dem ba 7TV nekkatul léegi affaire wu ay waa liggéey yooyu dañoo dem ba nekk benn famille quoi benn te loolu moo mooy l'essentiel bi te di waaj nag wax nag après magal gi dañuy waaj xadara maanaam diyaan ni tamit bu ñu ayee gàmmu dañuy def xadara fii tamit dafa ay berne joxewaat comme nii kàttanu suñu borom waaw ayca Cheikh Issa mi ngi noonu moom mooy initiateur événement bi su lay eh alaaji Papa Ndiaye ci sama xarit baa ngi ni ayca ayca Baye Fall safar tagale <laughs> safar rek mais mais bii mooy deux fois am rek la fi waaw waaw Ah. bi nga ñëwee léegi peut-être euh, bariwul looy gis télévision wala bërëbu liggéeyukaay yu organiser événement yu mel ni 7TV am euh, coutume bi 4 ans ci ren euh, at mu jot safar gi bu ñëwee ñu defee ko nii ban yëg nga ci am Papa Ndiaye. waaw loolu moo lay wan kër gi am na ay yaay faal am na ay baay faal am na ay jullit am na ay murit am na ay tijaan am ay laayen te boo dee sénégalais nag li xew ñëpp di ko def sëñ bi da ne ñu ne fa nga ne rek sant la ma fa yàlla te sant moom boo ko defee ñu dolli la te borom kër gi xam na ni yëf yi daa yokk yëf yokk rek la mën a def ma fekk fi Baye Fall bi nag yàlla boole ma moom ah sama waa ji Baye Sèvres bëgg Sèvres xarit Sèvres mu yaatal ñu bokk def ambianceur ma fekk fi booy yi nga xam ne ñoo leen dalal suñuy emprunté leen booy yi nga xam ni mooy loolu. ay ñoom seex ak ñooy papa suñu booy stagiaires yi ñoom commencé nañ fayee ko nag lu seer ñu am ay 3500 par weer. maa ngi leen gërëm di leen kontaane allez. pour la première fois sawar gi fekk la fi wala. non deuxième fois. quand même deuxième fois. waaw yow yaa ngi fiy bëgg a kii de. <laughs> yaa ngi fiy bëgg a yàgg xam nga te balaa kii. yàlla kay dëgg maa la yàlla naa fi yàgg maa la bàyyi ma. Ah, ah, ah. yow moom xam naa yow ñi seen xel nekk ci ay dem ak yooyu sax yow boo ko ci yow doo dem. day man maa jabarul télé bi. yow yaa waaw noonu la noonu la demee mais ziar nañ la aasi. delloo nañ la ziar bu baax tey tey ñu nekk ci weerum safar 7TV at mu jot muy def li nga xamante ni moom moo di safaru kër gi euh, ban yëg-yëg nga ci am. contentement contentement Mara parce que nekk na loo xamante ne daf ñu rassemblé ñun ñëpp. ñu doon benn famille man lu ma gën a marqué ci 7TV mooy euh, amul xaaj ak seen. fu mu toll nii doo mën a xàmmee ki animatrice la doo mën a xàmmee ki euh, mooy toggukat bi wala mooy mooy mooy mooy defar kër gi. donc euh, loolu gën na ma marqué ci li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy li nga xamante ne moo di 7TV waaw. très bien mi ngi noonu léegi xaaral ma jàll ma dem ci yaayu xale yi ma dem ci yaayu xale yi. taalibi Sëriñ Tuubaa bi taalibi Cerno Ibra bi taalibi Sëriñ bi. ah mbokkum yaay Marie Bass sama yaay <laughs> wala da nga ko bàyyi da ngaa xulóog moom. yàq na programme ba yëpp. da ngaa xulóog Marie Bass yàq nga programme xulóo maanaam lu nga koy tudd. ah mais Marie Bass sama xarit la nag sama yaay nga ma yow sama xarit. moom nga tudd ko. kon Marie Bass kii demal ne <laughs> man xaw ma ne man yow rek laay topp man topp ma benn xale. maa la bëgg. mais <laughs> jaar naa la. delloo yaay booy ñeenti at ci ren macha allah ma lay dékk micro bi ñuy am mbégte encore une fois bokkaat euh, journée bu mel nii. quatrième édition mu mu mel nii mu mel ci loo xam ne bi ñu koy tàmbalee amaana njort ñu woon mu yegg si fii. en tant que taalibe ban ban ban gis-gis nga ci am. waaw ah, ak cant rek Mara ak loo xam ne xam nga mbégte lay doon lii mënul weesu cant xam nga nga xam ne wax dëgg yàlla ci li ngeen nekk baax na ci li ngeen nekk mooy dëgg te bi biñ ciy wax ak safar gi dajaloo biñ ciy dajaloo la dafa am solo solidarité boobu dajaloo bi nii rek macha allah ñi gëj a gisee gisee toogandoo waxtaanandoo xam nga lekkandoo naanandoo. du lekk bi mooy li may wax chaque jour mais le fait que ñu fiy daje moo am solo waaw donc man mbégte la ci man moom waaw euh, weeru cant la safar la muy weer woo xamante ne nattu yeeg yooyu ci la wàcc tey gis naa la ci suba gi ci sa mi journée nga def euh, thème exilu Cheikh Ahmadou Bamba euh, dale ko 1895 jàpp jàpp 1902 ñàkkul ne am na ay anecdote yoo ci jàpp am na ay événement yoo ci jàpp mais tey bu amee benn anecdote buñ la ci wax boo xamante ni marqué na la ba tey bu la fi fekkoon yow bu seen bii dem du la fi bàyyi yow lay doon xanaa bëgg bëgg xam nga nit ki boo ko bëggee da nga koy da nga koy roy ñun Sëriñ Tuubaa rek lañu bëgg te su sañoon dama koy roy xëy na fekkee wuñ jamono waaye bu ñu fekkee woon jamono dinañu takk suñu baat bu ñun dem fekk ko danañu doon di jaam Sëriñ Tuubaa waaw ndax fekkee wuñ jamono waaye nag dafa am lu ñu bàyyil muy héritage muy jom muy fulla muy fayda muy ngor muy gëm suñu borom ba pare wóolu ko nag loolu moom héritage Sëriñ Tuubaa la bee bon ñu jàpp ci bu baax baax waaw bu baax a baax ngor la demee jom la demee gëm boroomam la demee fit la demee ndax kuy dem exil yow ngay dem mu wóor na leen di nga si moo tax nga ne bés bi bu ñëwatee da leen ma ko cantale jeex na te sant sant suñu borom daa bëri façon xamoo leen day ñëw moom xamoo leen day dem day ñëw parce que bi bi bi natt bi di waaj a wàcc dañ ko xamal ne ko wax dëgg yàlla mën nga bu mën ngaa dem coono yi dina bëri nag coono yi dina bëri lool mais boo ko mënee muñ mu ne bakkan bi dama ko moomul sama bopp waaye su ma wóoree ne sama borom dina ma téyel bakkan bi jom jaa ngi fi ngor gaa ngi natt buñ ma mën a teg dinaa ko muñ nag ñun itam nañ jàng lool ci sëñ bi ci muñ ci ànd ak suñu ngor ci maandu jaamu suñu borom nag loolu lañ jàngal. Oh, c'est un plaisir ah parce que day indi cohésion si kër gi donc ñëpp nekk benn murit tijaan ah comme li ngeen wax ña seen ñëpp laayeen yi ñëpp nekk benn xam nga ku nekk jël li am nga def si sant parce que nag bamba ji nag ñun la demal ñëpp la demal géej ah borom borom Touba ñun ñëpp la liggéeyal tey bu ñu ne murid rek képp koo xam ni rek yaa ngi jaamu yàlla murid ga te ñun ñuy dem ci terrain bi xam nañ ne Serigne Touba am na lu ko yàlla may waaw lool moom leer na. <laughs> mi ngi noonu Cheikh Ajaratu Adja Abité bu baax maa ngoog borom Ila Touba nga xam ne moom taaliba Cheikh la. waaye barki Serigne Bamba màggal gi bu ñëwee nga xam ne dafa bokk ci jàmbaaru Serigne Bamba yi moom moom moom dafa bëgg Serigne Touba taalibe Cheikh la mais màggal gi bu ñëwee day créer ay concept yu bees indi ay émission yu bees gis nañu ren Ila Touba nga ñu indil Adja Bité maa ngi lay mais man sëtaatu sëñ Mbaye Sarr la ah man dañ ko seexal. dégg nga loolu lool loolu loolu loolu loolu hasard amul. ah hasard amul. franchement ni nga ci safe nii man naka jekk ba xam ne am na lu ci nekk. ah loolu la. mais ren ci la Touba bi. Euh, ça se passe bien. waaw ça se passe très bien. mais man Mara li ma gën a marqué. Mm. mooy parce rythme invité yi am c'est-à-dire koo ci wax ne ko je veux parler de l'œuvre et de la vie de Cheikh Ahmadou Bamba duñu duñu sax réfléchir te dis automatiquement d'accord maa ngi ñëw man loolu daf ma yéem daf ma daf ma marqué en tout cas c'est un plaisir et on a vu que téléspectateurs yi recevoir nañ ko bu baax di ko suivre te ñun loolu rek moo ñu tax a jóg man dafa am lu lu ma ci xaw a impressionné d'habitude màggal dañuy invité waxtaankat yi nga xam ne dañuy wax ne bi di wax léeg-léeg peut-être kiraama yi xar baax yi ak yooyu mais cette fois dama gis ci concept bi li ëpp ci li ngay dal ay historien la ñuy doon ay professeur la ñuy doon c'est-à-dire dañuy waxtaan ci beneen côté boo xamante ni mooy fond bi dañuy dugg carrément ci fond waaw la ma waral soit invité parce que dama mës a toog euh, ci Ramadan show ak Sister Maria parce que Sister Maria xam nga dafa xam bu baax yoon bi man lu bëri dama ko siy laaj daf ma ci daf ma ci expliquer ñu invité kenn mu ne dañu war a bàyyi di wax ci cheikh sëñ bi ci ay kiraamaam dañu wax ci liggéey bi mu def parce que kiraama yi ñëpp xam nañ ko et xar baax yooyu waaw loolu may sunu boroom la mais au delà de ça dafa am lu bëri lu mu defal Sénégal dafa am lu mu defal Afrique dafa am lu mu defal humanité léegi nag man loolu laa bëgg wane à travers Ila Touba mais sama question bi dafa garaaw de <laughs> dafa garaaw parce que seetlu boobu man damoo ko ci def ma ne lu tax Adja demul jëli waxtaankat ñi nga xam ne maanaam dañuy waxtaan ko ni si njëriñ mais yaa ngi ñuy jàngal ci sëriñ bi loo xam ne ñun amaana am na lu ñu ci on a un trésor te malheureusement xamuñu ko. dañ ko téye ak suñu fukki loxo ak juróom-ñaar. Mhm. soxlawuñu dem seeti leneen. wallaay dëgg la a tout cas bëgg nañu euh, ma laaj la ci safar gi mën ta ñàkk nan nga gisee quatrième édition ren mu mel nii ah mais comme d'habitude yëpp yoon yoonu sëñ Touba la kanam la am amul tànku ginnaaw barki sëñ Bamba ñu dem <laughs> tey kër gi dafa amoon gan ah Badara Ndiaye Badou Zikroula moom la ñu dalaloon ci émission ambianceur mais gannaaw bi mu noppee daa ñëw ngir ñu yeggale cant gi ci biir safar gi ndax tey mooy quatrième édition bu safaru 7 TV Alioune Badara ñoo ngi bég dalal la ci 7 TV ñu ngi bég ci ñëw bi ñu tey. waaw maa ngi bég man tamit di wax dëgg yàlla di siyaar waa 7 TV yëpp di ko njëkkee ci ki nga xam ni moom la madame Ndour suñu borom moom la dénk lii muy mu jiite ko di di ñëpp nag yàlla su émission bi jaaree ci yow ma ñëw fii ñëw ci safar bi kon maa ngi lay siyaaree itam di la jox sa wàccuwaay ci barke borom Touba. bi nga bi nga ñëwee gis jotaay bi ni mu mel euh, ban sentiment nga ci am bu ñu demee ba bërëbu liggéeyukaay télévision bu mel ne set tv di organiser safar ba nekk quatrième édition ñu di ko def ban ban jàngat nga am. waaw bi ma ñëwee am am na lu ma xaw a sama yaram li ma yëg mooy ndakata safar gi nekkul gaañ yi dañ ko nekk ci mbedd yeeg ci koñ yeeg yooyu hmm. kon am na ñooy liggéey ci ci barab yoo xam tey boo leen fa fekkee xam ni li nit ñu di dund ci daayira yeeg yooyu ñoom ñu ngi koy dund. mooy tey bi ma ñëwee 7TV fii gëm naa ni ensemble bi ma fekk euh, ñu togg maa ngi fekk ñu ñam façon ñam bu nañu togg ko. ngir ngir def ko ci safaru Serigne tubaab yi man sama xol dafa dafa gën a sedd ci accueil gi ngeen ma gi ngeen ma def man daal bég naa ci loolu. mi ngi noonu bi ñu safaree ci kaw ba noppi mën ta ñàkk euh, nga tuddal ñu yàlla fii ci jotaay bi loolu moom mën na ñàkk. aja bismillah. la ilaha illallah. fala ilaha illallah Mustafa yaay génn góor sëñ Bamba yow ba nga tukkee ba ñëw boobu lanu faluwaat Bamba doomi maam jaara sëriñ Bamba yow sa màggal gi bu yegsee jinne yeeg malaaka di ko teeru sëñ Bamba yow yaay génn góor yow a borom baafali borom banaana borom gawme sa dikk bii ba nga ñëwee boobu la nu faluwaat bamba doomi maam jaara bu sowooy lay laa ilalaaw yaa neex a waay lay laa ilalaa muhammadu rasululaay la ilaha illallah Cheikh Ibra Abdul Karim yaay borom makarimal akhlaq yaay borom yërmande ya Sénégal Baay Abdul waaw waaw Allah waaw yaay borom makaarimal axlaq gërëm na la gërëm na la Saliou Fallu gërëm na bay abdul karim yaay borom makarimal axlaq yaay borom yërmande Sénégal bay abdul karim Cheikh abdul karim yàlla la jiital waaw waaw sëñ abo fallu gërëm na la bay karim fallu cheikh say gërëm na la bay karim fallu sëñ abo fallu gërëm na la bay karim fallu sëñ cheikh say gërëm na la bay karim fallu sëñ abo fallu gërëm na la bay karim fallu cheikh say gërëm na la dayratul makarimal axlaq ah dayratul makaarim al laaj mooy sunu daayira bi laa si xaar Cheikh Abdou Karim ibnu Serigne moo ko fi sos yal na yokku waa kilo ñoo ngi liggéeyal Fadim Rasool fii ci Sénégal ndax ñu am Rasool Cheikh Abdou Karim Mbacke Fallilo waaw waaw waa Pakatas gërëm nanu la wa PMD garam nanu wa Pakata wa PMD garam nanu wax leen baykat yi baykat yi waaw waaw fàlli la waaw waaw fàlli la Sénégal wax leen yaay borom cant gi waaw waaw yaay borom cant gi mbaaru mbaa awa fay yaay borom cant gi mbaaru mbaa awa fay yaay borom cant gi waaye seen mooy laat yaay borom cant gi waaw waaw bay kare falilo waaw waaw bay kare waaw waaw falilo falilo bay kare Fallilo wax leen yaay borom cant gi yaay joxal sa jiin bi topp liñ ji bàyyi laan bi bala nga faatoor eh, waawaa wax leen sol jiin bi topp liñ bi bàyyi laan bi bala di tasaara yónnee su yónnee di tasaara yee a di tasaara yónnee su yónnee di tasaara yaa ku sopp Seyduna Muhammad jël de solo eh, a di tasaara walla laa ilaaha illallaah bal déggal ah ku sopp Seex Ibra la ku sopp Seex Ibra la ku sopp Seex Ibra la loxo loxo daa boy maam sëñ Ndiaye jërëjëf yàlla na ñëpp am jàmm <laughs> Alioune Badara yàlla yàlla guddal sa fan yàlla yàlla wéral sa baat lii nga def tey ku rëy mënu ko soxor mënu ko ndax li yëkkatiwu la woon bu la neexoon nga ne émission lañ ma invité jeex na damay ñibbi waaye da wàcc taxaw nit ñi téye la ci buntu tele bi ne la ne la ne tuddal ñu yàlla bégal ñu nga bégal leen Alioune Badara booy sikar aal bi ngay àndal lu jógee ci xol ci xol lay dellu lan moo lan moo lay bégal ba tax ñi ngay bégal di bég waa Mara xam nga àddina nit ku nekk sa métier sànq damaa gis ñu toog ci plateau bi nga jékki-jékki dem dafa am loo xam ni euh, bu neyee ci yow su yëngu doo ko yëg doo ko yëg parce que moo sa lay nekk man damay damay way ba si yàgg aalu dem waaye bég naa loolu nag ci accueillir bii ma waa 7TV accueillir rafet na loolu ndax mënoon ngeen tamit ñu ma def émission pare ngeen dem waaye lii bokk ci woon. yow bëgg. waaw maa ngi kër gi ñëw la bëgg. damaa bëgg nga def ko sa kër. barke barke Sëñ Tuubaa def naa ko sama kër. def naa ko sama kër ni ngeen ma accueillir xam naa ni fii euh, ay liggéeykat ngeen waaye daf ngeen ma seen xol. ku xar seen xol da ngeen ma ci fekk kon man sama xol sedd na allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam jërëjëf kon daan nañu jaajëf cheikh mi ngi noonu yaa ngi gis safar gi moo ngi wëy safar gaa ngi gën di neex te jàngkat yaa ngi ñëw ñu ngi ci yoon bi fii dana gën a neex bu soobee yàlla ak yonent bi nañ doxal nañ doxal cheikh mu gën a neex mu gën a xumb gën a dagan maa la ko wax yaay faal bu jigéen bi ñëw na sama patron ñëw na ki Sénégal bëgg ñëw na ki baax ñëw na ki bëgg ay employé am siisu leen ku baax ku fi ñëw mu ne ñëw leen jël seen wërsëg na leer yaay faal bi tey moo ñu jëndal ay nag joxe paasu màggal yi jëndal ñu ay yére yu baax may mën a fay mara jàkkaarloo ak yaay faal civilisé bi yaaja may ni ngi lay nuyu balaa balaa ma wax sama yaay gaale mbay mbay fëri xam nga ñoom ñooy ay géwélam macha allah mara ñu ngi jàkkaarloog jigéen ju baax ñu ngi jàkkaarloog jigéen joo xam ne boo jàkkaarloog moom sa xel dem ci yaasin buubu sa xel dem ci ñimat moot sa xel dem ci jigéen ñu baax ñi gaynde la tubaarkàlla am jom yaay faal bi may mun a lañ koy wax tubaar tubaarkàlla borom 7TV très bien ñoom def nañu def def nañu introduction bi léegi dañu may bàyyi ak euh, MNF ñu waxtaan ak moom may a Ndour Faye lii moom coutume la ci ñun quatre ans ci ren ñu di ko def waxtu wu ñëwee euh, ñu dégg ko suñu micro laaj ko ay sentiment am wala ni nga xamante ni noonu laa gisee bës bi euh, tout d' abord MNF maa ngi lay nuyu. maa ngi am contentement encore une fois nga mayaat ñu mën nañu wax permission ñu defaat lu mel nii ci kër gi. ah defoon nañ ko daaw fekkee déwén dañuy baaxantal mm. c'est devenu une tradition mm. euh, ñuy màggal safar gi rek mm. euh, di waajal euh, màggal gi ànd seeg ñëpp en tant que patron de presse nga ñëw fekk sa waa kër sa njaboot ci cohésion bu mel nii loolu lan la lay def jàmm ci la lépp xej jàmm cohésion entente complicité ay nit bu ñuy liggéey ñun suñu liggéey dafa metti ay nit bu ñuy liggéey day laaj ay moment Euh, voilà ñu bokk de moment comme ça euh, safar bi c'est un moment spécial euh, ñu koy célébrer avec ñoom avec l'initiative de Issa ñoom Papis ah murid murid yi nekk ci kër gi yëpp ah euh, donc yu mel ni day tax on se retrouve voilà añ reer voilà te terewul liggéey baa ngi dem. gis nga gaa yaa ngi suñu gaa ngi dox euh, ñu ngi waajal añ yeeg bagage yu mel noonu. te gis nañ itam ni nga ciy jàppee ni nga ci euh, dugale sa loxo. mais man bëgg naa xam parce que tey laay soo nga xam ne peut-être cette TV employé yi nii la ñu toll parce que léeg-léeg damay xëy si fekk ñiy wàcc wala ñiy xëy si mais yomb na ci jigéen nga boot njaboot gu toll nii ak ak jikko yi tamit ni muy wutee. yomb na yombul voilà te vraiment gars yi yombal nañu yor gi euh, fii ñun ñëpp euh, on est entre frères et sœurs voilà bu liggéey bi taxawee nag dañuy liggéey teg ko yëf yi ci yoon mais bu woosee liggéey bi ñun ñoo bokk lépp voilà ñoo bokk ndey ñoo bokk baay on des amis on est des frères on des sœurs euh, donc lool mooy yombal mbir mi et puis on de la même génération euh, communication bi day day day yomb du du jafe te ku ci nekk bu liggéey taxawee xam nga li nga xam ne Euh, moom mooy sa cër xam nga li nga xam ne moom mooy say prérogative xam nga li nga xam ne moom mooy say say say say limite ay mag rek ñoo fi nekk lan ngay dénkaan sa njaboot bi waaw xanaa ñu boole xol yi euh, gën a mobiliser wu euh, gën a taxaw qu'on soit de ce qu'on fait a fait qu'on soit de ce qu'on est tey ji tey 7TV na li nga xam ne moom mooy place am mm-hmm. dans l'espace médiatique du Sénégal Euh, kenn du ko naatable ñu bañ a baisser les bras continuer di liggéey liggéey nag saay boo yeewoo dangay liggéey comme si mosoo liggéey boo ci dajeek succès boo xëyaatee da ngay def lu raw la nga defoon ba suñu borom may la succès boobu parce que suñu métier genre boobu la boo taxawee rek ñu dab la donc liggéey la boo xam ne il faut tout le temps si mobiliser il faut tout le temps euh, tout le temps innover il faut tout il faut tout le temps euh, jël en charge li nga xam ne moom mooy les changements de l'environnement il faut tout le temps être là il faut tout le temps être présent je pense que depuis qu'on a commencé euh, cette télé-là en mars 2018 ci loolu la ñu nekk on n'a jamais baissé les bras et on ne baissera les bras quelles que soient les obstacles mbokki téléspectateurs yi comme ni ngeen ko gisee ñu ak yéen tey ñoo yendu fii ci 7TV ni ñu ko baaxoo di def tàmbali ko depuis 2020 xam ne tegale nañ li nga xamante ni moom moo di safar gi bu weeru Serigne Bamba gi teroo di weer wi nga xamante ni ci la demee woon ca géej ga ci la defee woon tukkeem bi mu ne woon bu delsee na ma sant la suñu borom 7TV des ci ginnaaw at mu jot da leen di gunge ci ay bernde berndeel ay téléspectateurs am ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci alentour yi xamante ne tamit dinañ fa rejoindre télévision bi ngeen gis journée bi ni mu déroulé li fi xew yëpp ci ay xeetu baax baax dañuy ñaan fekk ko ay yu bëree bëri te màggal Tuubaa gi suñu borom defal ay xéewal euh, may ñu xéewal yu bëree bëree bëri yu ñu ci mën a def seen Tuubaa liggéeyal nañu ko te jar na ko yàlla nañ suñ borom jox ay xew yu ñu fi def kër gi yàlla na fi yàlla def jàmm Maimouna Ndour Faye suñu directrice générale yàlla na ko yàlla jàmmal jàmmal waa kër gi yëpp ma ko tuddee teg ko ci bopp bi rek mat na ñi ci des ñëpp ñu ngi ci biir papa Cheikh ci caméra yi ah gars yi ci montage bi ñëpp bëgg nañu leen jox leen dig daje incha allah bi ci yeneen programme 7TV ba déwén incha allah ñu safaraat ba mu neex